Déthié Fall asalaamaaleykum mbokku département de Pikine la question des inondations nga xam ni question bu yàgg am la ci yenn commune yu Pikine yi yooyu aussi travaillé nañ ci pour bu nu yàlla mayee ndam ñu mën ci indi saafara bi war marché syndicat fàttewuñ ko wante yi fàttewuñu secteur informel bi secteur informel li ñuy contribuer actuellement ci sunu PIB xam na lu muy tekki et comme ni ma ko waxee démb secteur boobu dina am accompagnement de l'État pour ñu gën a dem vers formel ñu gën leen aider ci formation gën leen aider ci nu gën a yokk seen capacité pour que lii état di joxe bitim réew ñu mën leen ko jox bu ko defee ñoom ñu gis njëriñ ci li ñuy liggéey. xam leen ci sunu programme le Sénégal bon à vivre et beau à ci am wàll bu yaatoo yaatu yaatu wàllu gu jëm ci emploi. wàll gu jëm ci éducation wàllu gu jëm ci santé wàll bu jëm ci assainissement wàll bu jëm ci cadre de vie wàllu gu jëm ci autonomisation des femmes wàll gu jëm ci accompagnement de tous les projets des femmes wàll gu jëm ci sport wàllu gu jëm ci culture yooyu yëpp ci programme Sénégal bon à vivre et beau à defeñ nañ ko ci asalaamaaleykum mbokku Kër Massar on est extrêmement fiers de cet accueil bu xool kanam yi xam ni yéene woon ngeen ñu yegg si fii bu xool kanam yi xam ni am ngeen yaakaar ci changement bi ñu xool kanam yi xam ni bëgg ngeen ku réglé xëyu ndaw secteur informel bi ñu xool kanam xam ni bëgg ngeen ñu réglé assainissement bi ñu xool kanam yi xam ni bëgg ngeen un Sénégal bon en vie et bon en